الوسطى على حبيبك نبيك مصطفى اللهم صل على سيدنا مصطفى مصطفى kontaan naat bu baax a baax a baax macha allah tabarakallah nga ni ci Medina nga jëm tubaarkàlla macha allah ñu ngi naan laat bu baax mun Abdallah gis ngeen ko moom ci journal bi yal ko yàlla yërëm te yeexam Sénégal am na perte bu mag am nañ perte bu mag macha allah Pape nga ni danga woy lan borom Medinatu Munawara waaw macha allah kon régie bu baaxee rek Mohamed ñu dem ci Medinatu Munawara macha allah aca ba tey aca aca waaw طيبة لا دوم سواها أجان غيسواج سيدنا محمد daarul habibi ah xulubuna tuhwa ah yonent bi daaral hana wa kazal ina wa kazal muna daarul habibi xulubuna tuhwa jàngoy miin nga madinatul munawwara boo demee makkata bul fàtte jaar madinatul munawwara ajàngoy boo demee madinatul munawwara nag ma nuyul sama soppe ba seydina muhammad nag ma nuyul seydina ababakar nag ma nuyul seydina omar waaye bul fàtte seydina usman bul ma fàtteel seydina aliin nag ma ziyaareel xulafaaw raashidiin ya ay waay madinaay ay madina madina madina yaa mata dem madina taa munawara yow yeneen ci bi diina yaa mata xam madina yaa lakk xayral xalqi yaa foorey ay waay madina yi ay madina madina ajaa ngoy seyduna muhammad nee na ma bayna bayti wa xabri rawdatin min riyaadil jannati seyduna muhammad nee na diggante sama rawdu bi ak sama minbar bi ku fay dox yaa ngay baagante ci dëri aljanna ya ay waay madinatu yasrib bu fa moomata dem fala bëgg yóbbu sama yaay madinatu yasrib ku fa bëgg yóbbu sa way jur defal nii ñu màggal seyduna muhammad madinatu ay madinatul المنورة بشراك يا هلب حازا سيد الأمم وهذه قدرة المختار في الخرم وهذه قبة القدراء كالعالم ومنبر المصطفى متد في ميرو سيدنا محمد منبر المصطفى هادي وقدرته وصبه وبقيء ضائر بيمين yonent bi fatib waqib an xumami kunta tamiluha wa satanal kulla ma tarju min karami ya sayyidi ya sayyidi ya rasulullah xuz bi bal abdu dayfun wa dayfu la lam yudami barrière war ba ca sa soppe ba rasulullah moo fa Seydina sama soppe bi rasululaayi alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu duppee Seydina Mouhamed mbaay sama mos ak Seydina Mouhamed ndaw borom ñaari Mouhamed yi maa ngi nii toog macha allah Pape tubaarkàlla macha allah kon bu baaxee. Mouhamed mi ci suuf tam. borom ñetti Mouhamed ki ne régi Mouhamed kon Mouhamed bu baaxee macha allah nga demal ñu Medina. من رياض الجنة ومدينة مدينة مدينة لا لا لا لا incha allah loolu la wax ca Moustapha ma ci Medina borom barrière or bi nga xamante ni ku ñu bind moo tax moonu gën gën ñu ndey gën ñu bàyyi gën ñu lépp tubaarkàlla macha allah ah waa Pape lii moom tubaarkàlla Medina bi Pape yow fan nga nekkee macha allah. man maa ngi nekkee dëkk bu ñu naan Ngëriñ Bambara. Mhm. nekk ci Mbour département bu Mbour. Mhm. Ngëriñ boo ñëwee ba campement ngee foofu rek. Mhm. <laughs> foofu nga jóge tey ñëw fekk si ñu fii. ci spécial ndëwënal bi. fonk 7 TV macha allah ñu invité la. la macha allah li tabaski gi euh, korité bi di xat xat nga bàyyi li nga jàpp añ rek daw si macha allah la Pape dafa am équipe am groupe bu muy àndal voilà. waaw ñun nag euh, am nañu groupe comme ni ma la ko waxee sànq rek groupe bi mu ngi tudd waa Kër Rasoul. waa Kër Rasoul euh, leader bi di Pape Sarr mhm. président groupe ba di Alaaji Mawe Diallo. Mhm. manager ba di Ousmane Diarra. ak mhm. staff bi nekk sunu ginnaaw yëpp. voilà en tant que xale. macha allah nga te yow. ni man defuma dara damay tag yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ngay xale jël ko metti na wala. <laughs> waaw metti na nag. yombul ah. metti na mettiwul. mais nag yombul. lu tax waaw parce que Mm-hmm. aussi ak milieu bi ñu nekkee muy Petite Côte. Mm-hmm. Euh, yàlla mënoon nañu xiir ci leneen. Mm-hmm. dem defi leneen. mais bu nu yàlla xiiree ci tag yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam bu bu bu bu nu dal. la. nattu bu nu neex bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam ci lépp ci moom la njëkkee te lépp ci moom la mujjee. kon bu la yàlla xiirtalee ci moom. ngay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di ko def à bas âge. nekk ak say morom. Mhm. yàlla xiir leen ci leneen yow yàlla mhm. xiir la ci lii. Mhm. ba ñu dem sax ba ba ba def la référence. di la roy kon loolu sant yàlla la. voilà kon loolu sant yàlla la ñu ngi sant yàlla na bu baax a baax a baax a baax voilà. yéen euh, bu ñu ñu ngi waaj seen traite. muy. Ah, aju màkk gi wax nga dëgg xam nga moom fu ñu waxee aju màkk rek <laughs> ñuy tagg Seydina Muhammad yëpp macha allah ñu ngi ami contrat uh-huh. am ñu leen di soxla am ñu leen di seet da ngay rester Mbour wala yaa ngi ñëw Dakar non damay ñëw Dakar uh-huh. mën naa damay dem ci Sénégal gi yëpp da ngay dem Sénégal Kaolack euh, Fatick uh-huh. euh, Ziguinchor fu ne daal ci mais groupe bi génnagul dama ko amagul benn contrat génn ci biti non amagul contrat génn ci biti fan ngeen jot a dem. Eh, fi ñu jot a dem dem nañu Gambie. Gambie Gambie dem nañ fa ñaari yoon mais mm. contrat boobu dañ ko bokkoon ak sunu mag. Alaaji Moustapha Rasoul maa ngi koy saluer de passage di ko nuyu Dumbaan mm-hmm. mm-hmm. Seck euh, ñu ngi koy nuyu bu baax moom it di ko mm-hmm. ziar boobu Mauritanie la woon defe naa ñaari ñaari contrat yooyu daal la ñoo ñu jot a génne mais au niveau Europe bi daal amaguñ ci ay contrat dafa mel ni ci way yi dégguma na nga jël yëfu kenn déedéet. <laughs> lu tax loolu. yàlla dimbali pourtant xale yaa ngi challenge jël seen. wayu ñuy xëccoo maam moom lii kii naan lii kii naan lee. <laughs> waaye déggaguma ci. déedéet nag yàlla dimbali na ma li may def moom. Mhm. Euh, du ma ne du aw ma royuwaay am naa royukaay. Mhm. am naa ci ñi nga xam ne sama ay référence lañu. Mhm. lu demee ni alaaji Cheikh bu Diop. ku ma bëgg la te ku may roy la. ndeysaan bu Diop bi. sallallahu alayhi cell gi. ci euh, base bi mu koy teg. ndeysaan macha ma ko ciy roy bu baax. Mm-hmm, mm-hmm. ak bari na mag ñu demee ni ñoom. Mm-hmm. di di tagg yonent bi ci ci wàllu moo tax man. bariwul lu may jël ci wàllu weneen ndeysaan man daal nu may tagg yonent bi dama ko daan dama koy bëgg di ko jëlee ni ko mag ñi daan defee mm-hmm. ma di ko defee noonu mm-hmm. ndax tagg yonent bi sama benn mag magu la ak leer dëgg la kon nag secret googu ak leer gi ci nekk ndeysaan secret bi nañ ko jéem a découvrir kon nag faw ñu jéem a fortaatu mm-hmm. ci mbindu mag ña jéem a def suñu yëfi bopp nga xamante ne bu ñu ko tegee ci ci place publique rek ñu mën a xam ne lii am na baatin mhm. waaye bu ñu jëlee yëfi àddina yi euh, day xaw a àddinawe daal mhm. <laughs> waaw waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. dama mos a dégg mag mu baax mu ne boo koy way bul ko way yow ci sa xaal way ko moom ci xaalam laa ilaha illallah moo tax ñun bu ñu taggee dañu koy a jël ci xaal boo xam ne macha allah ku ko dégg di nga xam ne lii ci xol la jóge waaye ci xol lay tàbbi boo ko déggee mu def la ma bëgg nga toppandool ma tuuti saam rek mayal ma ko may mën a Ndour Faye ak Papis Mbaye macha allah Serigne Samb xam nga man moom dama ko bëgg waaw man dama ko bëgg dama koy roy waaw macha allah macha allah macha allah ci njàngin mu rafet ni mm-hmm. waaw yal na yàlla fay ko yi amin yaa rabbi amin yaa xanaa ma ma ma jéem ko roy rek ci njàng mi muy mi muy jàng Serigne Babacar waa aca aca boobu dinaa ko bëgg dina ma neex macha allah yow yaay borom leeri mam xalifa Babacar si jël na ndam la fii jadwa ñu nara baax yaay seen sëriñ maam xalifa Babacar Si jël wa inna ni xad min alindiri alindiri wa maskani bi ala daari andiri arbauna xul zaakal adal ذاك العدد لنورتي داري إذا رمت المدد رمت إذا رمت المدد رمت خليفة بابا كرسي جلنا دملا فيه جدواه الخاج منصور برم بالخوم والبيادي محمد منصور قرقة جنا الهاجي كوكو موي بايو سن sëriñ bay Mansour ma ca gannaaw Alaaji kooku mooy baayu sëriñ bay Mansour ma ca gannaaw borom kaw dun jalaalaati صبر قلبكم سلم يا موتي بالخومي صوتي والبا يا ديني الحاجي منصور غرغا تشغن الحاجي كوكو موي بايو سن باي منصور ما تشغن بايم وانني قد كنت من الندري الندري ومسكني بيالا داري اندري رياندري اثناني أربعنا خل ذاك العدد ذاك العدد لنرتي داري إذا رمت المدد رمت الم إذا رمت المدد رمت الأخليفة بابا كرسي جلنا دولة في جدوى مباي maa ngi ci déwénati bu baax bàjjen umu xayri mu alaaji abdou na naka noonu lay waxee ak Yacine Ndoye mi nga xam ni sëtu Alaaji Abdoulaye ma di leen déwénatu baax bàjjen umu dafa fonk télé bi daf ñuy seetaan daf ñuy suivre tubaarkàlla ah, moom njabootam gépp tubaarkàlla macha allah ba ci Pape Ndoye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax waa kër maam Abdou jooju waa kër Sidi Aj Malick Pape macha allah eh, li nga way léegi ci ci saam tubaarkàlla li neex na di. macha allah man tamit maa di ko may suma papa. macha allah ak suma yaay ndax. waaw ñi ma meññ yëpp ay taalibe Cheikh lañu. ndeysaan ay taalibe Cheikh maa ngi leen koy may. ndeysaan di ko may suma famille bépp. waaye mm. di ko may sama taaw yaay muy mm-hmm. Ablaye mm-hmm. Sarr. Mm-hmm. nga xam ni moom taalibe Ndiol Fouta la. maa ngi leen koy may macha allah. Sam jàngkat yi dañ ko bëgg lu tax. mais parce que maanaam engagement bi muy am ci buy tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sellal gi mu koy sellal sallallahu alayhi wa sallam xam nga yonent bi moom maanaam boo sellalee sa tagg rek jëmee ci moom la gis dalay fonk waaw ku la gis dalay fonk mhm. euh, li alaaji cheikh bu Diop doon doon wax naan mhm. fu ma romb ñang ma naan waykatu cheikh bu baa nga wallaay ndeysaan foo ko fekk moom danaan doon nay bu naa ma wàcc nga ndeysaan euh, sama papa dafa may faral di wax ne ma nit ki loo mhm. nekk rek fexe see marque see empreinte dëgg la mu ma xam nga sàcc sàcc ma ne waaw mu ma sàcc xam nga baaxul ma ne déedéet mu ne ma waaye booy bu la yàlla natoo ngay ab sàcc sax fexeel na sa métier mokk. Mm. bu ko boo sàccee kenn du la jàpp. Mm-hmm. waaw boo dee sàcc sax na mokk. moo tax bu moo tax kenn du la jàpp. Serigne Sam daal li ma bëgg nañ mu mokk <laughs> macha allah. Serigne Sam li ma jàngat ci moom rek mooy tagg gi muy tagg yonent bi. Mm-hmm. moo mokk. moo mokk yàlla na yàlla defal ko sutura. macha allah macha allah ak doole ko xewal waaw parce damay seetlu toujours euh, kii yu bari sire yu bari damay gis moom ñu koy jël ci sire yu bari Pape du mbugguma lim ñu ci bari bari bari même ba ci Tafsir gay damay gis toujours ñoom bu ñuy siira rek da ngay gis mu nekk ci suuf ba ci léegi rek maa ngi lay bi ñu ne des journal maa ngi lay am benn kii am bu muy euh, ma naan laan daf ma daf ma neex laka mujizatun ajazat kullal waraayat neen <laughs> لك معجزات أجزت كل الورى تما صفلك باب أن سيد المرسلين أجزت كل الورى أي لك معجزات أجزت كل الورى يننت بي لك معجزات أجزت كل الورى آيات sayyidil mursalina ajazat kullal wara laka mujizatun ajazat kullal wara ayat nen ay laka mujizatun ajazat kullal wara laka mujizatun ajazat ay kullal wara kullal wara ay sayyiduna muhammad salla alayka law ya khayral wara sayyiduna muhammad ya man bihi anna al azab yazullu ya ummatal hadi bihi yanhikum ngoy caalay séera de fal xadrali wal maxaawa jalilooy sayduna muhammad déggal li sayduna muhammad sayduna muhammad nazala alkitaabu musarrihan bi sanaihi ambayte ma jàng séera wa kazalika وكذلك التوراة وإنجيل شر المشيخ بي مم ينتبي وشور فآل آدم وسما به موسى وسعد الخليل سيدنا محمد فالكل منهم تتزل لوائه يوم الجزاء إذ الوقوف الطويل فتباركوا بمدحه وبذكره ينلتبي فتباركوا بمدحه وبذكره سيدنا محمد أن جاء wa an gaza min gazabin waayin sayyiduna muhammad yàlla ko tànnal ndey ju baax dellu tànnal ko baay bu baax dellu tànnal ko ay maam yu baax te doo ci lim ku baax ba ca maam aadama te mooy abil bashar gis dalee ca aadama mi abil bashar ba ci yontu yàlla siisa ba ci abdul muttalib mi jur abdullahi mi jur sayduna muhammad xataangoy amul góor mm. mbaa jigéen bu ma samay boroomam yàlla da daan jël leeru sayduna muhammad di ko def ci ndigu góor yu laap muy dem ca biiru jigéen yu laap mm. rasulullahi bay major nee na leer gaa ngay daw nuuru tanaqala mm. wa rahmaanu xaafizuhu min saalibi taaqiri fii taahiri ruhumi أبو آدم أوشاش شموتنيا إذ لا يزال مصونا fi حسابهم سيدنا محمد فلا يزال شرف يدنه من شرف من كل أشراف بيت من قريش لولا تقو في باخ ba ñu di la yaakaar sa mbaax ga yaa ngi ko barkeb Seyduna Muhammad dëggal maam Cheikh Seydil Haaji Malick ba kereeg aram loo maam kumba caamey si di faa ngay dem mi ci jawaar ana ñi bëgg bàyyi sëriñ Babacar si ndar ndar bi maam alaaji Malick si Maodo jàngum bërëy na mm. laay laay ja day riir Maodo si kar la woolo doonu na mbër ma maam Seexu Tijaan alaaji Malick tubloo na ca doy mm. teral na ñeeño laa jël góor gi mu seale mbaay daw góor biram du mbekk Amadou Mbay maw doog maam Ousmane ana ñi bëgg baayu Sëriñ Babacar góor ñi ku ci bëgg a baax royal ci maam da baax baayu mu lay da baax jël na ndam li yóbbu jag saaw maam alaaji Malick nee na yéen ñu soxlaa xam Seyduna Muhammad ñëw leen Tiwaawoon ma xamal leen rasulullaay way na ko ca xilaas ga maam Seydil Hadji Malick moo ñu xamal Seydina Muhammad bàyyi mu lay da baax mu ñuy jooy te noppeeguñu buur buur du masaana jot dañu daan toog ba yàgg rek dégg alaaji Abdu naan amin tazakurin ji ranin bi muxlatin bi dëb mi مولاي صلي وسلم دائما أبدا على خبيبك خير الخلق ستيفي دفلني امن تذكر جي ران بيزي سلام ما زيت دما جرى من مغلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ستي في دفلتني الحبة الريق من تلقاء كاظمة وأمد البرق في ظلماء من إدمي محمد sayyidul kawnayni wal saxaalayni wal fariqayni min urbin wa min ajami abdun jalilun faqirun xaashiun wajilun zu jazain washiun yallahu yallah déggal li rabbun dégg ngeen Pape Sarr kalla li mu fi def spécial ndawanal bi nag lu neex la tubaar kalla ci cek aji mooy ci ali sànq nag dégg ngeen ko tubaarkalla ci bi mu duggee rek ci saam ma siira fi rek <laughs> remplacé fi Pape An xaw a jël tuuti tubaarkàlla. <laughs> taf ah. taf seen gay. Ah, am na solo de xam <laughs> nga man fan yi waaw damay dégg ci xale yi <laughs> boo nee la ka mu'jizatun ajazat kullal wara moo ma jaaxal mbay. ñoom ñëpp ñu bokk naan ku waraa. ku waraa waaw. <laughs> te naan sama xol dafa sedd. sama xol dafa sedd <laughs> keroog. dama dal ci <laughs> ci ci ci laylatul xadri bi. wallaay ma dem am sunu benn magu taalibe buy waxtaan. Mm. ma jug rek siif ko ne la ka mujizatun ajazat ku lal waraa. Ah. waaw xale yi ne waraa ci ginnaaw. mënatuma téye sama bopp. xam nga Sam yàlla na gudd fan. ndeysaan amiin yaa rabbi koy nuyu bu passe de passage. moom taalibe Sidi Hadji Malick bu am solo boobu nga xam ne macha allah këru diine yëpp la bëgg gis nga pap yéen amu leen xàjj ak seen euh, seen euh, jëf dafa rafet mm. ndax kenn ku ci nekk ku këru diine bu mu doon rek mm. Muhammad alayhi salaatu wa salaam la boot sallallahu alayhi wa ngeen ànd na ngir jëmmi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tey tuut ay tuut tànk waaye ngeen set ci wicc sànq dafa am baat boo ma wax danga ma ne yonent bi soo ko dee tagg bu yàggee moo lay wuy si te bu la wuy see lépp lay fekk si yow nag yaay xam sa bopp xam yaay kan tubaarkàlla macha allah yeneen comme murid yeeg yooyu di ngay demlante xale yi. Ah, bu baax di ngay comme. bu baax noonu laa ci bari ay xarit. Euh, hmm. maa ngi nuyu de passage suma xarit euh, Papa Wade. Papa Wade waaw nga xam ni dalal ngeen ko fi macha allah macha allah suma xarit la baax la suma frère la. Hmm. Ah, Papa Alla Diop bii. Euh, doomu Alla Diop suma xarit la sama doom kooku moom sama doom la moom. fekk na ma université ba tàyyi suma frère la suma seex la. Ah, Euh, Baye bu Diop rakku Cheikh bu Diop. waaw ah moom dañoo bokk Cheikh bu Kunta. ndeysaan bokk borom Ndiassane bokk Cheikh mhm. bu Xar Jilaani bokk yeneen bi. ah di nuyu Ahmadou Diop suma mhm. seex. Mhm. di ko ziyaara bu baax Alioune Fall Ndofane. suma xarit la wax dëgg na yàlla keroog bi ñu ko invité Sen TV rek man ak moom ñoo bokk plateau bi. yàlla na yàlla defal ko jàmm Alioune Fall euh, Issa Thiam. fii ci. Euh, rue 11. la ma xarit la. ma frère la. Ah, Ibou Sakho moom it di tàggkat yeneen bi ñu tuddee ko El ba pare mu nekk mu nekk tàggat yonent bi ci kër waa kër Cheikh Seydi Hadji mm-hmm, Malick mm-hmm. moom it suma xarit la macha mm-hmm. allah dama ci bari ay xarit la mais nag man euh, képp ku tàgg yonent bi rek dama laa sopp dëgg la ndax ak noo mën di mel li ngay wax rek moo ma intéressé mooy yonent bi sallallahu alayhi wa te ma bu ma bu ma bu yi yàlla na ñëpp am jàmm laay wax waaye yàlla yaa rabbi ci barke Seydina Muhammad te nag ñoom ñëpp laay suivre la ñoom ñëpp laay déglu Pape Malick Mbaye euh, Abdou Aziz Mbaye daaw góor mbaay aw ma xàjj ak seen. Mm-hmm. ñoom ñëpp laay déglu. Mm-hmm. ñoom ñëpp laay déglu waa kër maam Baye. waa kër ci gën a jege. Euh, ku ma ci gën a jege. ndeysaan. Euh, di euh, suma suma sëriñ di suma xarit. Mm-hmm. di sëriñ Habib. Habib sëriñ Habib Kaymoor. suma xarit moom tonton Mouhamed xam na ko bu baax sax waaw. mais ay damu bàyyi dama koy bëggee bu baax ay dafa baax nit ku baax la bu baax a baax nit ku baax la macha allah ah, amaguma occasion nag ñu daje ci baas yéen ñaar yaag moom waaye dama koy bëggee dëgg la koy bu baax a baax dëgg la ah, ay waayam dama koy reprendre lu bëree bëri macha mm-hmm. allah ci baas macha allah ah. loolu mu wax ci ma waa kër maam Baye laay dugg nuyu sama waajur bu baax bi Baba naka noonu ma teg ci sama ndey Awa Jatara mu baax mi nga xam ne wóllëre aji ndey mbay la wóllëre alaaji Seydou la ñu bàyyi la ma ko tubaarkalla macha allah moom moomee sama borom kër bi Mouhamed Bachir Ndaw maa ngi lay nuyu bu baax di la déwénati di la wax nga baal ma xàq baal naa la yàlla nañu yàlla boole jéggal bu baax ndaw ba lépp ndax lii rek euh, Pape kenn mënu koo fay yaa ngi togg sa añ taloo ko sax defaral taajal ko mu lekk nga daw si ñëw ci liggéey bi mu ànd ci compréhension bërki démb de passage Papis Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax mu ngi ñëw ci télé bi Papis taxaw seedeel ma lu rafet loo xam ne macha allah bu ko neexoon ko ci fekk dama koy def ci 7TV parce que fii mooy sama deuxième famille fii laa am fii mooy sama lépp macha allah Pape mën nga ñu laalal tuuti ci waa kër Maam baay waa kañ ah, loolu nag moom suma nijaay laa koy may. Hmm. di sa di sa Mouhamed Ba Habibi <laughs> del wax Habibi man maa soppi tur yi tëdd ko Habibi. <laughs> may koy suma tadaa Aïcha ah moom it maa ngi ko koy may bu baax di ko may taalibe Baye yëpp. macha allah suma benn tonton boo xamante ne. ndeysaan euh, tonton Amadou Diallo. ndeysaan moom it di taalibe Baye Niass. macha allah may ko suma tonton Amadou Diallo. ndeysaan suma taawu Baye it. Hmm. Ousmane Sarr maa ngi koy may. ndeysaan ma koy may Baba Lamine man may ko Mama Diatara may ko Mouhamed Dramé may ko Marème Niass ca Amérique may ko Habibi tubaarkàlla macha allah allo إلا لا لا إله إلا الله أنا إله إلا لا لا إله إلا الله لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا لا أنا إلا لا لا إله إلا الله لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا الله أنا نيبك سيدي برخام ناس sangub sangub sëriñ muhammad ndaw baay laa lay wayal mm. borom muhammadul mustafa awla u mawla waay mm. kullal ataaya wa adnaana wa adna baay mm. la ilaha illana la ilaha illala la sidi muhammad ndaw kii moo jeex si Seydi Barhama Niass Muhammad naw habibi yaa bëgg Seydi Barhama Niass lay lay la la lay lay la la la ilaha illa la illa baay kon allah allah barxaama ñas allah allah barama ñas allah allah allah allah barama ñas allah allah barxaama ñas allah allah barama allah allah allah allah barxaama ñas allah allah allah allah jërëjëfi baay jërëjëfi baay Barama Ñas jërëjëfi baay jërëjëfi baay Barama Ñas jërëjëfi baay Barama Ñas jërëjëfi baay ay waay jërëjëfi baay jërëjëfi baay jërëjëfe baay Barama Ñas jërëjëfe baay Barama Ñas jërëjëfe baay jërëjëfe baay kon allah allah la ilaha illallah allah Ismaïl maa ngi leen di laaj kan moo waral lii Cheikh al Islam bàyyi na moo waral lii Cheikh al Islam Baba Lamin Ñas yaa waral lii Cheikh al Baba Lamin oo oh, Baba Lamin yaa waral lii Baba Lamine Niass Baba Lamine Niass yaa waral lii Cheikh al Islam Baba Lamine Niass Baba Lamine Niass Cheikh al Islam Baay mooy sama Baba Lamine Niass Cheikh al Islam maa ngi leen di laaj kuy borom faas Cheikh al Islam borom daar daar faas Seexu Tijaan Seexal Islaam moo waral lii. macha allah maam Baye noonu la ñuy àgg ba biir jam-jam macha allah ñu fekk fa yaay Faatuka fekk fa Baasin Ndaw tubaarkàlla macha allah fekk fa Cheikh baay fekk fa Badiane Ramata fekk fa min ka Sëriñ Lamine Ndaw fekk fa tubaarkàlla macha allah njaboot ga gépp di leen wax ne déwénati leen. ñu ngi leen di baalu xaq bu baax a baal a baax soxna Binta maa ngi lay baalu xaq bu baax a baax a baax mooy magum kër macha allah ah Pape man day dama kontaan ba nga xamante ni man xam nga baaba moom day sama baay di sama xarit aw ma lu dul moom boo ko tuddee rek tubaarkalla macha allah damay yëngu te macha allah tabaarkalla mag la mu ko mat ah tubaarkalla macha allah leeru Baay Ñas boobu Pape macha lan nga ñuy mayaat ci sa playback yi morceau yi. waaw playback yi ñu defaat ko rek ndëwënal. ngi noonu déwénal te dara du doy. ak sa TV li ma bëgg ñu ñëw nag moom dama ko bëgg a sargalee jigéen yëpp. macha allah sargalee joxaat naa ko may mën a nduur fay. mu ngi noonu <laughs> borom télé bi ak Adama mu mhm. yaay. dama dama ko wax ni. sama mhm. baat bii de ginnaaw yàlla ak yonent bi. Mhm, sa alayhi wa sallam. sañ naa la cee way. ndeysaan ndax. Euh, sama papa daf ma daf ma jàngal ni ma riddallaahi riddal waalidayni macha allah ginnaaw ak yàlla ak way jur moo gën a mm-hmm. ma comprendre nag li suma way jur daj ci man macha ba ma mel nii ma mel tey mm-hmm. bu ma nit ñi di ndamoo mm-hmm. wala ñu dab ma di ma jox ñaari loxo dama xam ginnaaw yàlla sama nday moo tax ma wax ci biir wayu nag ne ko macha uh-huh. yàlla ñetti yoon la tudd yaay doo tudd bàyyi dëgg la dëgg la kon su kon su yaay taxawoon ma bàyyi ko ñëw ci yow ndax moom man sama kon nag way woowu. ndeysaan dama ko way suma yaay. macha allah balaa ñu koy playback sax. Mhm. dama koy maddaa ba pare. macha may ko jigéen ñëpp. may la ko. waaw waaye may ko àddina bi yëpp. ndeysaan ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam kontaan bu baax baax a ay ca. may ko sa yaay li farata la. Mm. Ah, ah, sama yaay danga ma sagal yaay. Mm. li nga liggéey sama kër baay bi laay du nax saay yow sama yaay danga ma sagal yaay li nga liggéey sama kër baay bi laay du nax saay man dama jàpp ti baar ngir dem ca jàkk ja sama xel mi dem sama yaay ma ni faw ma njukkal ko ajaratuma jigéen sàll ma lay bégal yaay ya tax ma jëlaat pilim way ngir bégal la ndax ëmb juróom ñeenti weer ak yamu àndaloon yaay ma juddu nga yar nàmpal teg tette ma ah, sama yaay sonal naa la yaay loolu tax ma jëlaat way yaay ngir njukkal la sama yaay soxu nga root nga yaay fóot nga bojju nga sa coono démb bee metti woon na yaay tey bi doom yi màggee yaa tax ba lépp baax tey laa lay wayal di la feccal te ci njukkal laa sama yaay jox la néegu or taxul ma fay la yaay jox la néegu jama taxul ma fay la yaay di la tuur sama alal taxul ma fay la yaay oo oh, oh, sama yaay tey ma lay bégal yaay ya tax ma jëlaat way wi yaay ngir njukkal laa sama yaay soxu nga root nga yaay fóot nga bojju nga sa coono démb bee metti woon na yaay ajartu may mën a ndur fay ma lay bégal yaay ndax mat nga yaay te doon nga yaay tey ma bégal laa ndax sama yaay li mu ma defal su ma masaan di jooy guddi sama yaay du nelaw bu fajaree muy bàcc lay taay man may nelaw yaay am na fulla am na fayda te am na dignité yaay sa personnalité tax na kenn yabu ñoo yaay mbedd yaa ngi nii fu ma neex jaar aw ma fi sens interdit tey ma njukkal laa macha allah tabarakallah li mu wax yaay am na solo ndëwënal bi mu ko joxit am na solo waaye naka noonu mu jox ko ajaratu a Ndour fay sama PCA jigéen ju baax ji ci réew mi jigéen ju mën góor dama ko naan góor yabul jigéen yabul tubaarkàlla macha allah ku ko yab da nga koo fekk muy nelaw waaye bu yeewoo di nga xam ne jeeg jug na tubaarkàlla macha allah jeeg bu riis bu am maanaa bi nga xam ne tey lii ñu naan 7TV moo ko fi doxal jigéen ju mën góor bu doon ko naax saay la mbaa mu ragal mbaa yorul jikkooy sàmba lingeer mbaa yor jikkoy njëmbat mbóoj tubarkalla mag ñu baax ñooñu moom dama naan man sama patron tubarkalla gaynde la gaynde la man daf ma yokk force pap man sama patron dama koy xool rek barke naa Mohamed su ma amoon fula dama koy dolli su ma amoon fayda dama koy dolli bu ma ñimee woon dama koy dolli parce que xam nga lu tax maanaam dalay jàngal àddina domte la gis nga fii ñu nekk tele bu mu mën a doon rek fii ma toog ma ko gënal ndax fii ñi fi nekk dafa am lu leen may yara ak njabootam li nga wax léegi 7TV ñoo bokk ndey 7TV ñi fi nekk ñoo bokk baay 7TV ñi fi nekk ay mag lañ ak i rakk ak i yaay ak doom parce que li ko indi mooy ki leen fi boole mooy nit ci jàmm kon may kàll macha allah loolu moo la pap Sarr rendre la ci hommage man ngoy caal yi maa ngi la ciy wax lu baax loolu yow looy def rek maa ca gën sama patron bi keroog bañ lay décorer. ajaratu naati géey di la décorer fii ci place de souvenir danga ma ne sama géwél bi jugal dem ma dem dox ca ay jéego yu rafet ñëw indil la sa tubaarkàlla sa trophée bi dem ca gar mi ma wax ci lu baax ma dem ci ku ne bu ma yàlla bëggee daal na ma bàyyeeg waa 7TV yi rawatina may mën a nduur fay papis mbay ak mboolem ku fi nekk rek ak aadama saar saari Ibrahima saar sa doomu baay aadama saar rakku may la bu baax tubaarkàlla Pape ah macha allah ndéwénal bi day am na solo de. <laughs> am na solo. ndeysaan ah Pape macha euh, léegi yow ku la soxla fan la lay fekk. waaw ak ban numéro mu ngi noonu da nga may contacter boo ñu contacter ci mm-hmm. numéro 77 168. 53 47 Pape jàkkaarloo la caméra bee wax ko. da nga may da nga may contacter ci sama mm-hmm. contact man. 77 168 53 47. wala nga jël sama numéro manager 77. baamtuwaat Pape 77 952 76 37. incha allah boo ñu woowee ci ñaari contact yooyu. Mhm. foo bëgg ñu fekk la fa incha allah rabi dinañ la fa fekk. indi groupe bi yëpp nag. Mhm. bàkk tabala yi mhm. ah, bàkk yàlla bàkk yonent bi ndax tey noonu la ñu a ñëwee. macha allah waaye gis nga. jaam ak pexem yàlla ak dogalam te suñu xamoon ni nii lay demee. incha allah invité yi dañu am ngànt. incha ko xamee woon noonu tubaarkàlla dañ lay bàyyi. tubaarkàlla ñu raayaat suñu yeneen i jë te numéro boobu nga joxee dina tax téléspectateurs yi sawar ci parce que nag macha allah bi ñu def indee itam li nga wax neex na li ngay way itam tubaarkal la macha allah pap ku la gis xam ne daal yaa ngi liggéey denc sa bopp di liggéey te it bàyyi nga xel mag ñi macha allah tabaarkàlla pap loo ñuy mayaat ndaw na waaw xanaa ñu dem ci Cheikh Abdou Khadir Jilaani. ah waa lii bu ma yëngal. <laughs> xeetu yaa ngi ma yëngal sànq way nga fi ba ma siira. <laughs> remplacé Pape Dia Pape kii ak Pape An ak Tafsir Gaye. ndeysaan xam nga nag ñun. <laughs> suñuy wayjur ay taalibe cheikh lañu. macha allah waaye ñun fi ñu jokk mooy Ndiassane. waaw ah mooy suñu kër Serigne. waaw euh, ñu ngi nuyu Khalifa ba. macha ah, di nuyu Soxna Maguette Kunta. bi ci Birahim maa ngi bu baax. ndeysaan di nuyu waa Ndiassane mm-hmm. gépp. macha allah nuyu waa kër Cheikh Sidi Yaxya mm-hmm. Kunta Ibnu Baybu. waaye nuyu mm-hmm. euh, bu Cheikh Sidi Yaxya. nuyu Bekkaay Rakam. maa ngi nuyu Cheikh Abdou Khadir Jilani Kunta borom kurus gi nuyu waa Ndànk. Ah, waa Sanc Buuna di nuyu waa Sénégal gépp ak Sidi Mokhtar ak Cheikh Sidi wallaay ndeysaan ku baax ko yàlla baaxal sama way jur moo nekk ci buntu Ndiassane rek booy dugg ci buntu bi mas naa fa ànd mu boole woon ñu ba warkala muy baax Sëñ Baye Sidi mm-hmm. yaay mm-hmm. Adja Fatima Diagne nekk ca Italie Rome mm-hmm. di ko bu baax nuyu suma yaay Adja Marème Diaye fii ci euh, Kër Mbaye Fall macha allah kon ñu dem ci Cheikh Abdou Khadir waaw macha allah ah, waaw nga xam ne mooy maami Cheikh bu Mouhamed Kunta borom Ndiassane macha allah maam Jaylay sultaanul awliyaa yooy nu jéem a gëm ma di ko maam Abdou Khadir Jaylay wuy way wi yaa moom moom xutbu Jaylaani moom xawsulaay jilaani amaanulaay lay jilaani burxaanulaay jëylee wuy way wi Yaakob moom ana ñi bëgg Cheikh jilaani kamilu jili bara fan man min rijaalulaay deyli mm. naa la ma kanate waay cheikh deyli nee na fajat di rasulullahi taha muhammad ana abdul xaadar waay mooy cheikhu kullu tariqati cheikh abdul xaadir jilaani jeyli nee na mm. wa malakani jaman jeyli nee na jinaani wa ma xawa wa kulli mulukil alamin raiyati Cheikh Abdul Qadir Jilani wa fi qaanina fadxul taraka sadairan wa masharib al-usaaw ila baqiyati Cheikh Abdul Qadir Jilani maami Cheikh bu Mohamed kunta ma ca Njaasaan ana ñi bëgg Cheikh Abdul Qadir Jilani wa masharib al-usaaw إلى بقيتي شيخ عبد القادر جيلاني رفقت على من يدى يقوب في الورى مام جيلي غاين دي أو فسام تلا داور ديور تي دنيا فسوى نك لا داري ماني لانغان غدا نيخ ماني أبخج Mm. bu dee yàpp gaynde loolu mbot la ca biir jëlal mbiram yàpp yow demal jébbal ko jëylaani cheikh abdul xaadir jëylaani mm. cheikh abdul xaadir manila cheikh yi mel ni moom bëriwul mm. mooy sharif umman wa aban ñun sunu sëriñ tilimul ana ñi bëgg cheikh abdul xaadir jëylaani keroog ba jëyli cheikh ganese manila sax jigéenu wasinul googu guddi doom ju jigéen kay ma wax la soo ko gëmul def leen ni tafrijun xawaatiri saax man ca soo yaboo la ñalal waaju baax këyit ya ca biir daa ca gis lu man di sa xol moom Cheikh Jeyli ba mu juddoo gisees na ca moom leeri tànki xayri rasul keroog yonen di yéeg asamaan bay tàggoog lamin jibiril def leen ni leeri Jeyli doomi Musa ay waay moo taxaw tanaan ko waral rampalaas malaaka ma ak alburaax ci xayri rasuul def leen ni booba ndongo bees bu matee ay waay laamu naa ne deesu ko bel moom cheikh jeyli cheikh abdul xaadir ku ko bañ billaahi yàlla dal lay toraxal mooy sëtub rasuul ba mu dee ab xaleel bu ndaw ma tagul moom Cheikh Jeyli ay malaaka day jóge ca kaw di ñëw ci kaw ndigalam sunu borom di topp ci moom nan ko wàlli wulaay béggal ku koy warante nee ko xamoo yàlla ak kamu nar a fal mbër mu yàlla fal samp ko boo bëggee texe teralal yow Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani ba mu juddoo ca Bagdaad juddoom nga doy na waar Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani dafa juddu fukki fan ak ñeent ci weeru koor moom Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani waaye ba mu juddoo dafa ànd ak mag ñay woor gaaña naan loolu nan la mën a newee ab liir buy door a juddu nan la mën a wooree boobu xamuñu kan mooy cheikh Abdul Xaadir ni xanaa xamu ne cheikh Jeyli juddoowul Bagdad ma nga juddoo ca réewum Iran ca dëkk bu ñu naan Nif maawu dëjëta moo dox seen diggante benn île la fii mooy ni fii mooy ni ci jant bi lañu doon xoolee heure dog yàlla bëgg leen a wan martabay cheikh Abdul Xaadir Jeylaani mu nëbb leen jant bi ñetti ñetti fan kenn gisatul jant bi. léegi dañoo mujj bu ñu bëggee xam na lañuy xamee heure dog ñoom ñëpp dañuy dajaloo dem kër soxna umu xayri salma cheikh abdou xaadir jeylaani saa yu laalee weenu yaayam ñu xam ni dog jot na kon xaadir daa fay tabe day bari xam-xam te xol ba day leer xaadir daa day bari xam te xol ba day leer te di ko way sàkku ridwaana def leen ni busra la jëy li wax bëgg leen xam ni am ngeen ni leer ndax yoomal xiyaamate ñun bu ñu àggee ca jëy li muy leer ñu ubbi aljana waajal gaa yi li nuy leer jëy li ne fa fekk waaju nu naan ki baax na yow teralal teralal ndax taalu bépp jëy lii lu mu jëf am cëri duwaan déggal lii dine bu doon warga mani leen wird moo di naana kuy taali bépp jëy li xiimal am nga yow naana kuy taalibe jëy lii xiimal am nga naana macha allah tabarakallah jiili bu dee gaynde mooy aw fasam tubarkalla kenn du jiili tubaarkàlla macha allah dégg nga lim ko tubaarkàlla macha allah nga daa neex ndeysaan mu ne ab xaj bu dee yàpp gaynde macha allah loolu mbóot la ca biir mu ne jëlal mbiram yëpp dem jébbal ko Jeylaani borom Bagdaad kon bu Cheikh Abdul ma ne juddoom nga doy na waar waaye it demam nga doy na waar laa ilaha illallah bu mu juddoo it ñëpp mm. xam ne ne mooy borom ñaari bàmmeel dëgg la waay kon loolu rek misaal la ndeysaan yal na yàlla fayal ñu ko yal na yàlla fayal ñu ko Pape yow itam jërëjëf yal na yàlla fayal ñu la macha allah tabarakallah ndaxte nag tubaarkàlla macha allah ku la gis xam ne leader nga pro nga tubaarkàlla ndax defagoo fi daray como te loo fi def rek macha allah tubaarkàlla dugg na ci xol yi te lii la 7TV soxla ñun dañu bañ ba dañ naan télé bi ñuy nduru ba noppi te di ñu dajale laa télé qui nous ressemble et kon ñun dañoo àndandoog jamono tubaarkàlla macha allah ah, képp ku ci sa mbir ne rek yaa ngi ci biir naka noonu laay nuyoo maam ngay honorable député ca Cambérène 2 tubaarkalla macha allah muy sama xarit di sama rakk di sama doomi day di sama lépp maa ngi koy déwénati bu baax honorable di la wax déwénati fekkeel déwén baal nu àq baal nañ la yàlla nañu yàlla boole baal moom lekkul dara bàyyi nu fonk ma safoo ma faale ma dëkk ci ma ni teraanga ak sama njaboot kon tubaarkàlla macha allah dama lay déwénati bu baax a baax a baax waa Pape kon léegi ban clip la ñu war a eh, tegaat macha allah xanaa ñu xanaa xanaa ñu may ñu ñu may ñu Serigne Babacar bi ñu may ñu Serigne Babacar bi waaw nañ ñu may Serigne Babacar bi waaw tubaarkàlla kon Mohamed <laughs> tubaarkàlla bu baaxee rek ñu macha allah eh. ما بين بيتي وخبري روضة من رياض الجنة ومدينة مدينة مدينة لا لا لا لا te bàkku ko andax yi moo ko jagoo daan sàcc gaa ngi dëdës bil kenn du maam xaalifa Babacar tubaarkàlla macha allah ah Pape. waa 7TV kontaan nag maa koy may maa ngi koy may suma yaay Adja Soda Diop fii ci parcelle. Mm. di ko may suma mag yaay it. ndeysaan eh, sama yaay sama yaay eh, Fatou Sall fële ca Géejawaay. ndeysaan ndeysaan di ko may taalibe sëñ Babacar yëpp. Mm, ah, ko mm. waxee woon rek maa ngi koy may Ablaye suma taawu papa. xam ne moom taalibe Ndiol Fouta la waaye dafa bëgg sëñ Babacar. ndeysaan ah, ndeysaan maa ngi koy may sama soppe yi nga xamante ne ñoo dëkk Somone. Mm-hmm. Somone di ko may Linguère sëriñ Babacar yi. Mm-hmm. may ko Moustarchidine yi nga xamante ñoom Euh, ñaari événement ngi nii yoo xamante ne ñoom Moustarchidine yi mm. man la ñuy woo maa leen koy defal foofu ca ah, suma ah di ko def ak Linguère Serigne Babacar yi nga xam ne bu ma ñëwee foofu mm. teranga junne dañ ma koy defal di ko may Mbooja suma sœur mm-hmm. may ko waa Sadji Pressing nga xam ne mm-hmm. ñoom le 7 avril bi ñu mm-hmm. génn non le mars lañ doon def foofu sargal jigéen man maa ko doon def macha allah di leen ko may bu baax naka naka man itamit kon noonu laa koy mayee monsieur maire dun paate muy maireu Cambérène di sëtu Seydina Limaamu Almuntazar la sama càmmiñ li baax lool bëgg ñu fonk ñu xanaa xamoo ni pap àddina moom nii la rek ku la yëg rek nga yëg ko te monsieur le maire daf ñoo bàyyi xel la xam ne ak njabootam lañu mu fonk ñu safoo ñu fàll ñu kon maa ngi lay wax déwénati fekkeel déwén yàlla nañu yàlla boole baal ah la yàlla may la gudd fan ak wér yokk ndooma tànk yi nag ba nga yëg ko loola loola lool laay maxtaar laay alasaan ak seen seen mi jigéen noonu laay wax nag ci waa Cambérène Nations Unies nga ma nekk nga xam ne bu ngoy caali dee génne 7TV ñëpp dañuy escorté wu ci télévision bi du ñu changé du ñu zappé ndax man la ñu bëgg tubaarkàlla macha allah Pape ñu ngi ci njeexitalu émission bi tubaarkàlla macha allah ah di kontaan nag bu baax ci yow di la wax ne bëgg nañu lool lool lool ah sa kàddu gu mujj. ak lan nga bëgg a wax loo xam ne laajuñu la ko ak lu sa xel nekk ak koo bëggoon a waxal lu baax muy sa nit wala nga bëggoon ko déwénati parce que yéen tubaarkàlla nit yi ngeen effectivement tubaarkàlla damay santaat yàlla rek di julli ci yonent bi sallallahu wa sallam di gërëmaat waajur yi di ñaan yàlla na yàlla gërëm leen mhm. euh, di la gërëm yow suma tataa mbay di la sant bu baax ndax lii yombul vraiment temps temps d'antenne ak ni mu toll. ngeen jox ko sama jëmm ju xeebu ji. man mi nga xamante ne jëmm ju xeebu laa. Euh, loolu nag bëgg naa ci lool. ma ko. te képp ku ma bokkal aussi. bi aussi sentir nga mu ngi noonu ci déwénati bi kon Nabien yëpp kontaan nañu ci lii mhm. ma jógee yëpp ñoo tamit mhm. euh, sama mot de la fin daal mooy di sant. Mhm. di gërëm di ñaanal yàlla sama borom yàlla na la yàq yokk dëgëral yàlla na yàlla yokk say sutura yokk sa xéewal bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam bàyyi la ak sa borom kër bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ma koy gërëm nag di ko sant ndax sama nijaay la mhm. waaye ku ma taxaw ci li ma nekk ndax dëgg ne yàlla duñu umpante man ak moom mhm. wax dëgg neex yàlla duñu mhm. umpante mu may ñaanal di ma ñaagal it ndeysaan waaw dafa may jox xaalis la xaalis bu bari la may jox <laughs> loolu moo baax yàlla yàlla dolli sutura ci barke Seydina Muhammad waroon nañoo ànd ca ziyaara ba ndeysaan foofu ca Saloum waaye dafa fekk jour ma ma amee ma amee programme mhm. waroon fa dem fanaani loolu moo tax mhm. mais maa ngi ziyaarawaat bu baax groupe bi nga xamante ne ñooy waa Kër Rasoul euh, tataango yi gis nga liggéey bi bu rafetee ab Saar Rasoul lañ gis rek mais li nekk sama la yu déterminé yoo dama leen faral di wax ni lii ngeen di sonn gis naa ko ndax euh, bu ngeen di sonn ci man mhm. sama yaay ngi tëdd sama papa ngi tëdd ku sant saar ni man yaa ngi tëdd di nelaw waaye yéen ngeen ànd ak man mhm. ñuy xuus ci ndox yi mhm. di nekk ci ci naaj bu tàng bi lépp rek ngeen ànd ak man liggéey bi man nag aw ma fay yàlla moo am fay yàlla laa leen di boole yàlla laa leen di bàyyil comme ni ma ko waxee rek tey ci groupe WhatsApp bi euh, ci turu Maawi Diallo di président bi ak Ousmane Diarra yàlla na yàlla fay fay xale yëpp mm-hmm. xale yi may àndal ndax ñëpp ma bëgg mm-hmm. koo xam ne boo taxawee war a dem programme boo tegee oto quinze places bu fees ba man du ma am fu ma dugg loolu cofeel la a mm-hmm. yàlla xam na ko loolu nag cofeel la yàlla yàlla dëgëral leen yàlla yàlla bàyyi leen fi ci barke yonent bi fans club bi gis naa leen ñoom bàyyi jéey xale yi nga xamante ñoom fàllu fu ma jóg ñu jug def ay kaar ñëw topp ma loolu gis naa ko mm-hmm. yàlla na sama borom yokku leen dëgëral ci barke mm-hmm. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mm. maa ngi gërëm képp ku ma bokkal nu ma ko waxee léegi Ousmane Sarr mooy sama taawu baay taawuñu taxawuñu mm-hmm. yiir ñu ba tey ñu mënal mën a mënal suñu bopp maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokku ko dëgëral maa ngi nuyu képp ku sama papa bokk ngëriñ nga ma jógee ngëriñ nga ma jógee ci ñoom laa nekk ba tey képp ku sant Sarr te bokk ak sama papa maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm maa ngi lay ñaanal yàlla di nuyu sama bàjjen yi mhm. ah su ma limee rek damay juum sama mhm. bàjjen Ndey Sarr sama bàjjen Maymuna Sarr mhm. sama bàjjen yëpp daal sama bàjjen Adja Sarr yaa Seyda nga xam ne sama bàjjen boobu man su ma jógee war a dem programme su ma amul oto dama koy wone ko bàjjen oto laa bëgg mu jël otoom def ci gasoil ne ma demal yaay sama doom dimanche maay maa yoon animation ba. Mhm. samedi bii incha allah sama mag dafay defal doomam euh, anniversaire. Mhm. maag Serigne Sam Mboup ñoo koy bokk. ndeysaan incha allahu rabbi. Mhm. Ah, le 27. incha allah maa ngi jàngee Somone. macha allah foofu ca Somone. le 4 mai. maa ngi jàngee campement Ngexox. di jàngal jigéeni sopp nab yi. Ah, le le le le douze ak le onze yëpp. maa nga maa nga ngin gi neew. ngin gi neew fara bugg. incha allahu rabbi di wax soppe yëpp nañ fa xaar. waaye daal maa ngi nuyu képp ku ma bokkal di nuyu sama rakk yi. ndax ñëpp ma bëgg te ñoo ma jox cër. li may def am naa ci rakk boo xam ne. Ndeye Fatou Sarr la tudd. defe naa ku xool samay vidéo à travers euh, TikTok bi. Mhm. di nga gis man ak moom ñuy def ay vidéo yu bari. moom laa bëggoon a àndal sax waaye xat-xati julli gi moo tax. ma bàyyi ko fa. Euh, sama rakk bi topp ci man. Mhm. Ndeye Dabaale Sarr. maa ngi koy nuyu di ko ziar maam Ayta Sarr. Mhm. Ah, ak di nuyu nag sama doom bàyyi. Saareen Saareen waaw Saareen Saareen. maa ngi nuyu sama doom bàyyi ndax sama papa mu ngi noonu sama papa dafa dafa jaboote <laughs> soxnaam bi nekk sama tante Ndiolé. nuyu ko nuyu ay doomam Adama Sarr mu ndaw. ah Cheikh Tidiane xam nga sama papa moom bëgg gi mu bëgg Cheikhu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Mm. moo tax mu dogal mu jox ko tur. waaye ah nuyu xaasim mu ndaw caat nga xam ne mooy sama caatu yaay. Mm. sama papa dafa amaat doom tuddee ko Alaaji Xaasim Saaxo mm. nga xamante ne wëllëreem la waa kër ah, Alaaji bu Saaxo sama wëllërey papa la ñu. Mm-hmm. ba barki dem bi ñuy ñaanal sama maam sama papa xaasim dafa dagg ay yiteem yëpp. Mm-hmm. ñëw di bokk ak ñun ñaan gi mhm. ah kon ñu ngi nuyu xaasim mu ndaw xaasim caat waaye nuyu sama sama rak yi nga xam ne ñu nga mhm. mbuur mhm. nuyu ma jigéen mu ndaw ah ñoom Modou Njole ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar waaye nag sama sama sama sama soxna yi sama soxna yi laay wax ndax ah, sama sama grand frère ay soxnaam yëpp samay soxna lañ dama leen di wax ni laataa may am soxna ñoo ma doon taxaw di ma fóotal di ma defal lépp wax dëgg neex yàlla muy wëli Fall Ramatulaay Ngóone ah, Mami Jeng ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar ah di leen baalu àq bu baax waaye nag di nuyu sama benn maam boo xamante ne tango yi dafa jàpp sama carrière ñu naan waa <laughs> <laughs> ñu naan ko Adja lay sa bari di Cheikhu Kunta ndax euh, Cheikh al Bekaay Kunta ko Cheikhal mu bu Bekaay mu Cheikh al Bekaay mu Cheikh bu Mouhamed mm. euh, kon Cheikh lay sa dafa mm. jàpp sama carrière dafa ma daan wuuf di ma yóbbu Njaasaan mm. wax dëgg neex yàlla. bi muy gàmm. ñu mhm. seexal ko ñu ne ko ñu ne euh, seexal bi da koy def gàmm. Mhm. mu ne man maa koy gàmm. ndeysaan te boobu mënumaa wax sax. wallaay ndeysaan laa ko jug ca kaw. waaw yaa ko doy cofeel la. ndeysaan mu di ko def ba heure bii. Mhm. yal na yàlla yokk ko sutural yal na yàlla yokk ko dëgëral. amiin yaa bi may tudd léegi. mooy taawam. maa mm-hmm. safurlaa mooy doomam bu góor bi xam ne daf may tëggal tabal yàlla na yàlla yokk ko sutura ci mm-hmm. barke yonent bi wa sallam may gërëm sant ñëpp ndax su ma toogee di gërëm rek <laughs> dina am ñoo xamante ne nii du ma leen tudd dëgg la tuddul mën dëgg la dëgg la dëgg la waaye Pape Sarr képp mm-hmm. ku jàpp ci carrière am kaw ba suuf bàyyiwuma kenn dëgg la euh, suma yaay Adja Fatima Diagne bi ma doon tudd léegi 2016 la ma gis ci benn groupe WhatsApp. Mm. jël ma def ma ni doom bi mu sukk. ndeysaan ndeysaan kooku teraangaam du jug ci man. dëgg la loxoom di jug ci man. Mm-hmm. wallaahi wa rabbul kaaba ak ñëpp ñi nga xamante ne rek. ñi ngi jàpp ci liggéey bi ndax lii dafa metti dëgg la tag yonent bi yombul. te ñun xam nañ ku ñu gis xam ne ay taalibe lañu. dëgg la waay yoruñu. déedéet waaye gis nga. yéen a ngi sant yére yu rafet yi ñuy sol. nit ñi ñoo koy xotti. dëgg la di ñu ko jox. dëgg la oto yi ñuy war. nit ñi ñoo koy jënd di ñu ko jox te ñi am nit ñi koy jox wallaay Sarr sama papa nag dafa dafa faral di wax nii mhm. bu ñu teewee ci jataay yu demee nii nit ñi di sant di gërëmante mhm. am kenn ku jóge fee ko amul xel ne ah ñii de li ñuy def wanewu la rek mhm. mu mu ne mu ne mu ne Tiwaawan de moom Tiwaawan nga mu jokk yematuñ ci sax ci sant ak gërëm. waaye dañuy bind liste. ndeysaan ndax nag euh, euh, nit ku ko ku ko ku ko ku ko yëg rek mu yëg la. Mhm. macha allah kon nag ku la defal lu baax. Mhm. te daango yi mhm. nga wax ko. te nit ñi ñu ngi jàpp ci suñu carrière. ñu ngi sonn ci suñu carrière ñu ngi contribuer ci suñu carrière. studio ba nga xam ne fa lay enregistré. muy Papis Ba maa ngi koy ziara di ko gërëm di ko sant ndax jàppandal bi muy def ci liggéey bi. dëgg la waa su mën production. ak jàppandal bi ñuy def ci liggéey bi mhm. yàlla na yàlla fay leen ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama benn tata bu nekk fii jam ñaajo laa ami si démb la ma naan man yow rek laay topp ndeysaan foo nekk maa nga fa kon dama tam yow rek laay topp macha allah tabarakallah <laughs> nuyu sama tata Adja Soda Diop eh, eh, eh. nga xam ne sama tata la waaye sama soppe la moom su may way sëñ Babacar day daanu ba joxe li mu amoon yëpp def na ko joxe la mu amoon yëpp <laughs> na yàlla yokk ko dëgëral nuyu sama nijaay ma Kumba Diop nuyu famille Medoune Diop yëpp waaye nuyu sama benn nijaay boo xamante ni dama wax ne suma nijaay bopp la mhm. ndax dafa bokk ak sama papa mhm. baay bokk ak sama yaay nday muy sama nijaay Birama Sarr am ñaari taxawaay ci ñun nekk mhm. baay nekk nijaay waaye di ku mat li mu doon mm. macha allahu rabbi taxawuñu biir taxawuñu biti yàlla na yàlla fay ko moom su ma mm-hmm. su ma ko tuddee rek mm-hmm. tudd naa sama kër yaay waaye tudd naa sama kër papa macha na yàlla yokk ko suturaal yàlla na yàlla yokk ko dëgëral ci barke yonent bi ba fii ci euh, Pikine ak ay sëram mm-hmm. a baax a baax macha allah nuyoo baa ngi noonu pap <laughs> sa rakk ji Mouhamed Mbaye tey la suba la anniversaire am 11 avril ma di ko souhaiter joyeux anniversaire benn bu góor boobu rek laa am ma di ko ñaanal yàlla gudd fan di ko ñaanal yàlla wér di ko ñaanal yàlla mu màgg waaye di ko ñaanal yàlla barke Seyduna Muhammad mi ñu ko tuddee alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa yàlla na ko topp moo naka noonu ay magam ngoore aram jaan tubaarkàlla waaw macha allah dañ koy anticiper <laughs> loolu koy loolu laa bëgg nag Pape bu ko defee moom Rasulullah lañ ko tudde direct sallallahu alayhi wa kon donc loolu daf may neex lool ma di ci kontaan naka noonu Pape macha allah may kontaan nag ci waa Nations Unies Cambérène hmm. man Pape dama dëkk ak ñoo xamante ni ñëpp a ma bëgg fonk ma safoo ma faale ma Nabou Cissé mu ngi may seetaan ma Cissé Alima Ndiaye mi ci fuyaay jaaxaak maa demel nit ku baax la su ma commencé toog ci télévision 7TV Nabou Cissé bàyyi na lu mu jàpp Ndey Saaxo bàyyi na lu mu jàpp ah. la Asulaay bàyyi na lu mu jàpp naka noonu naka noonu ñi may seetaan Cambérène ñi ma bëgg ñoom mère Fala tubarkalla mère Ñang ñoom waa mère Fala mu nga dëkk ci suñu koñ macha allah Nations Unies gépp ba Cambérène 2 sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ñaw bi nag Baye Alpha sama rakk ju baax joo xam ne la lu ma sol rek moo ko ñëw waaw la waaye nag <laughs> sama goro bi Maria di goro moo Modou Mbaye Garmi mm. moo ma jox mbub mi tubaarkàlla keroog yaayam jox ma ko yaayam ju baax ci moom itam maa ngi koy nuyu bu jàmm di déwénati ñëpp di wax ñu baal ma baal naa leen yàlla nañ yàlla boole baal sama soxna nag tubaarkàlla waa sa soxna maa ngi nuyu madame waa aca aca ah, maa ngi koy ziyaara bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk dëgëral lépp lu mu am ci ci sëyam bi yàlla na ko yàlla barkeel waaye nag maa bu jigéen nuyu way juróom bu góor yaayam di nit ku baax mm-hmm. ku tabe ku bëgg Ndéla Diouf bëggul ku ma wax dara ndax nee na maay taawam maa ngi koy nuyu di nuyu sama goro yëpp fii ci Tëngéej mm-hmm. nuyu Mamadou nuyu waa famille ba yëpp jàmbaar ah mm-hmm. nuyu kamu Boubacar Alsane Camara nga xam ne dama ko sonal lool sama goro la waaye morom laa ko def ndeysaan ah, maa ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax a baax te di ko ndokkeel ndeysaan ah, di wax ni kontaan naa bu mm-hmm, mm-hmm. baax a baax a baax a baax yal na yàlla a leen dëgëral nuyu mm-hmm. soxna Maguette Kunta bintu Birahim suma yaay la waaye suma a la a conseil am du jug ci man macha allah day day def euh, ci téléphone am crédit woo ñu teg leen fii seen tànk defee leen leen nii yal ko macha yal na di leen wax ne nag macha allah a ah bu émission bi rafetee nag la ngeen dégg son bi normal da ngeen di xam Mouhamed la ak Pape sama jinne cameraman xale yu yar yooyu maa ngi leen di baalu xàq bu baax di leen baal wax ne yàlla nañu yàlla boole baal monté bi bu rafetee. la macha allah semu la sama càmmiñ lu baax loo xam ni daf maa bëgg tubaarkàlla 7TV daal samay famille lañu kenn ku ci nekk. di nuyu nag umu saw saw sa boor sama rakk ji maa ngi lay ñaanal yàlla jàmm nee naa la xobu garab wala naa ñaanal taatu garab yàgg fi yow neewoo ma na xam ñaanal naa la bu baax yal yàlla defal jàmm naka noonu Maria bëgguma lim su ma limee damay juum man bi yëpp samay nit lañ ñëpp samay mbokk lañu di leen wax ni loolu lañ indiloon ndéwénal tubaarkàlla Pape Sarr la ñu àndaloon doomi Mbuur doomi Njorox tubaarkàlla mu àndoon ak aji ngoy caal yi ñu ñëw indi leen spécial ndawanal chéri Habibi nag lay doon ma jël nag ndawanal géeg li nga mujj may lépp may naa ko yi Habibi tubaarkàlla ndaw bëlëm ndukkumaan sàndeeni aram fax mi ci dan yi njaxana ko du bi géeg jogom ndaw ko du bi géeg bëlëm ma ci ndukkumaan sàndeeni aram fax maalum mbay mu ñuy seetaan ca yëmbal malika sama ndijaay la tubaarkàlla macha allah di nit ko yàlla baaxal mook ak njabootam tubaar baara mbay sama maam doomam moom lañ ko tudde ak sama yaay ah ñooñ ñëpp sama njabootu di jaay maalum mbay lañu ñu ngi ñuy seetaan ci Malika kon nag tubaarkàlla macha allah lii lañ leen indiloon ndawanal Pape lan ngay tàggoo loo ñuy may tubaarkàlla. Cheikh Bou Kounta yaa doon nu rasulallah. sallallahu yaa doon nu mm. yaa doon nu Cheikh Sidil Mukhtar. doonu sabaay bi maam Cheikh bu naama borom Njaasaan. sa barke baa ngay borom njaasaan barke baa ngay moo doon nu rasuulullaay ilaay moo moo doonu Cheikh Sidil Muxtaar doonu baayam ba maam Cheikh Bunaama borom Njaasaan barkem baa ngi te tàngo fii ku fi sañoon fu la neex ngay juddoo lay lay la la ku fi sañoon ku la neex doon sa baay waaye ñoom yàlla teral na leen kunta kunta yee ay waay maam cheikh bu kunta góor gi sancoon na fii ci njaasaan mag ña bokku naan bu kuntaay sunu maam maam cheikh bu kunta góor gi na fii ci njaasaan mag ña bokk naan bukkuntaay sunu maam ay waay cey cheikh bu cey cheikh bu bukkuntaay sunu maam ay waay cey cheikh bu cey cheikh bu bukkuntaay sunu maam mani la wax ka ko xam mooy ku dégg lu wax ja ay waay ku ci xamoon li ma xam kon nga fonku cheikh bu borom njaasaan ñi ko gëmoon dañu ko wekk ngir xam borom mbaax cheikh bu kunta li fi andi waa penku bilaay du caaxaan góor gi njaasaan la yor kurusam doori per di leen woo gaña doxe mali wër di laajte cheikh bu bilay walaay ba ñu yegg see njaasaan laajte cheikhu njaasaan mu dal di génne nu yoog ñoom ñu naan ko yow laa mami Fatima Kunta mami Soxna Ndey Xadi mami Zeynul Abidin góor gi ba mu yegsee Njaasaan laajte Seexu Njaasaan walaay ñu dal di génne nu yoog ñoom ñu naan ko yow la bu Kunta yaa nu wan li nu gis loolu wóor na Raxmaan ambe e debolo doo morom ci gaañi ku fi sañoon sañoon fu la neex ngay ku fi sañoon ku la neex doon sa baay yàlla teral na leen kunte kunte yee man waat naa ni góor gi taalubem du xaaraan te taalubem du ñeetaan taalubem du xaaraan te taalubem du ñeetaan laa ilaaha illallaah سيدنا رسول الله شيخ بوكم كنياسان يا إيتني بناما اللهم صل على سيدنا مصطفى مصطفى على